Abdou Khadre Ndiaye maa ngi lay nuyu. Eh, madame Moreau maa lay fay. Abdou Khadre Ndiaye nga nekk analise politique déjà ma lay laaj naka nga gisee euh, dossier Ousmane Sonko euh, pour rek mu daal di mën a jot euh, ci fiche de parrainage am fi ñu toll ñu toll nii gannaaw décision bi nga xamante ne tribunal bu Dakar joxe na ko ban jàngat nga am si li si des. waaw jàngat bi ma ci am mooy xam nga justice dafa am na muy fonctionner. Euh, bi nga xamee si ne juge si Faye bi nekk Ziguinchor moo waxoon ne Ousmane Sonko radiation bi nga ko def ñu ko ci yoon kon dañ ko war a intégré dugal ko réintégré d'ailleurs at ko ci liste élect liste électorale pour mu am mu am sa capacité mu nekk électeur pour mu nekk éligible léegi nag bi mu waxee loolu avocat agent judiciaire de l'État dañoo def euh, li naan euh, un recours ci cour suprême cour suprême ba mu décider. ne carrément décision boobu nga xam ne juge si fay moo ko jël jugement boobu conforme wul ak droit day violer droit parce que cour suprême euh, ay de droit lan ñoom duñ juge ay feene moo def ak defut na naan lii jaar na yoon wala jaar yoon acte bi jaar na yoon wala jaar yoon bi ñu waxee ñoom ñu ñëw Dakar cour suprême daa koy euh, invalider li Sabassy Faye wax léegi euh, dàq affaire bi yóbbu ko jox ko beneen juge bu ne tribunal hors classe juge ne ko nekk hors classe nag dafa wax daanaka la juge si fay waxoon léegi nag la amoon moo amaat rek maanaam euh, avocat agent judiciaire de l'État am nañ possibilité eh, eh, eh, intenter un recours comme na recours bay amoon euh, ci juge Sabassy Faye waaw recours booba nag gisoon nga ne ba mu amee jox taxul ñu jox fii ci euh, Ousmane Sonko même donte juge si Faye moom la waxoon. kon juge bi tamit comme que dañ ko envoyé affaire bi tamit moom mu wax ne nañ ko jox fiche affaire ba day delluwaat ci cour suprême puisque cour suprême mooy juridiction bi nga xam ne si moo féete kaw bépp jugement bu ñu jël wala arrêt yu ñu jël ci cour d'appel waaw que ce soit fu man doon donc waxu foofu mooy waxu mujjantal gi tey fii ma bu ñooñu ne woon Sonko dañ ko war a jox fiche am avocat état yi kon de wax ba dafay jeex. waaw tant que waxuñu loolu rek wax ji day jeex léegi nag mu am leneen gàllankoor bu ñëw mooy su fekkee ne loi électorale moo organisé ne fi euh, nii la élection yi demee benn bi ba sa bokk mooy euh, parrainage yi day ubbi nangam tëj nangam euh, révision liste électorale yi ministre de l'intérieur def publication ne ubbi na liste électorale yi bindu ñu bind bu ko xasee tëj ñi def recours ñun génne woon ban dugal la ban tëj ko. dafa am protocole euh, additionnel boo xam ne CEDEAO ci CEDEAO la ne boo xam ne ne ah, six mois boo xasee de ci élection waxuma le président sax parce que président mooy autorité bi nga nga kawe mënta modifier les règles substantielles bu règle du jeu électoral yi te calendrier électoral bi aussi dañ koy respecté te aussi mu ci juste xamuma ci histoire politique bu Sénégal de 1960 en un jour Euh, ñu commencé lancer parrainage parce que parrainage condition de recevabilité la benn am benn candidat boo xam ne juge dana ko sax da naa war a intégré euh, ministre de l' moo xam nu muy def mu mën a dugal waaje ci affaire ba loolu xamaguma ci ba réew bu mu am rawatini ci Sénégal gii ñu nekk xam na ci ci la nekk kon sans Ousmane Sonko pour mu mën a dugg ci ay ay ay ay fi ay ay ay liste électorale yi euh, dama naan daanaka pot de chagrin la pour ne pas dire beurre au soleil. waaw ñu wax ci beneen euh, dossier soxal mbirum euh, mbirum Barthélémy Diaz maire de la ville de Dakar war a ji cour suprême ci 22 décembre bi soxal euh, dossier bu njaga Diouf moom nag posture bi mooy neena du dem parce que dossier bi li ko tax a jóg mooy xool nu ñu nangoo ci ay loxoom mairie bu ville bu Dakar naka nga gisee dossier boobu tamit. waaw dossier boobu ni ma ko gisee mooy. xam nga bi nga xamee si ne euh, Barthélemy Diaz dafa amoon problème euh, tribunal jëkk ko daan mu dem cour d'appel cour d'appel daan ko mu def un pourvoi pourvoi bi nag pour contester décision de justice yi amoon antérieurement que ce soit muy tribunal muy cour d'appel pour juge cour suprême bi kase ko moom loolu doon moom moo fa yóbbu moo fa moo yóbbu jugement bi foofu attaqué état je peux dire ainsi pour contester décision bi kon moom bu du demati foofu moom moo yóbbu gaa foofu bu nee du fa demati déjà loolu manque de cohérence lay doon un deux aussi euh, dès euh, dès lors que juge yi bis buñ prononcé ne euh, débouté ko ne ko yow li nga wax nekkul ñi jugé affaire bi ñuy jugé jaar na yoon dañu tirer les conséquences ci li am parce que acte juridictionnel bon parce que day définitif cette fois-ci boo gisee jusqu'à présent mënuñu ko ne ko da ngay génn mairie bi wala perte nga sa jaama parce que dafa def pourvoi mooy cas bi amoon fee tamit boo gisee Sonko mënuñu ko jox affaire yi pourvoi dafa am mooy li li am fee ak li am fee amul différence y' a pas une différence parce que ay pourvoi ñun introduire bu ko xasee introduire c' est suspensif c' est à dire que kenn mënut a lan décider antérieurement ñu appliquer ko parce que xamagul lay jógee fee ndax da koy dëggal wala da koy weddi xam nga xam nga comprendre fi bi nga xam ne. waaw waaw le droit bu demul tamit. juge pour bu en cassation bi ñoom danañ vider dossier bi wala ñu délibéré ko bu ñu ko euh, vider ñaar moo ci am soit ñu confirmer décision bi bu ñu ko confirmer mooy que ne code général des collectivités territoriales dañu képp ku ñu condamné ah ngay nekk maire wala nga am une responsabilité boo xam ne c'est élective ah wala mu doon ab nomination boo xam ne autorité moo la ko def ci wàllu que soit muy président wala dara est-ce que délit ak crime yi ñu toppee nit bu la ci xasee condamné tu perds tes droits pour pour l'instant maintenant moom xëy na peut-être que argument euh, de de force am la yore ah pour euh, wax ne du ma nangu nangam du ma lii du ma laa mais xëy na am na loo xam ne nag c'est pas du droit mais c'est de la politique ou bien c'est la nature humaine mu xëy na moom xam na nu muy xeexee organiser ay affaire am pour que peut-être euh, lim xalaat mu jàll wala yu demee noonu. waaw léegi aussi ñu gis ni société civile bi ñoom seen côté euh, li ñu bëgg nee nañ dañoo bëgg benn euh, personnalité neutre pour mu organiser élection présidentielle bu deux mille vingt quatre loolu aussi naka nga ko gisee. gis nga mature Sénégal seen démocratie c'est tellement mature mille neuf cent soixante ak léegi li ñu fa organiser élection kenn xamuñu toll. Euh, beneen bi mooy ministre de l'intérieur day organiser élection même bu fekkee am na ay organisme yu koy accompagner dans le processus électoral bureau de il y a des représentants de tous les partis politiques kenn mënatul a sàcc ci élection c'est impossible léegi nag société civile ñu ngi tuddee société civile fii man li ma xam ci société civile moo ñoo xam ne dañuy neutre maintenant ils vont essayer de jouer un rôle d'équilibre mais nit ki bu fekkee yow da ngaa jaaxaane jaaxaane woo ñaari côté nday di seex maanaam yow ñenn ñi ñu ngi ci côté état bi ñi ci ëpp nag ñu ngi ci opposition bi ñoom toujours ñoo naan diw dañ koo toon diw dañ koo doon jun ma sa wax diw moomu lii mu def nii boo jëlee exemple Ousmane Sonko kon kii nañ ko fa ba tàyyi convoqué mu lànk bañ a dem mosoo de ku nekk ci code civil condamné lu mel noonu wax na ay wax yoo xam ne wuru ko wax mosoo dégg ñu ko kon ñoom dafa mel ni ci ëpp ci ñoom euh, ci côté président yi nañu tiré peut-être c'est pour avoir une certaine notoriété euh, ci benn côté mais li ma jàpp mooy société civile bi ni ñu waroon a taxawee duñ ko mën a parce que ñenn ñi ci ëpp dañoo far ci opposition bi ñenn far ci mouvance présidentielle yi te nit boo xasee far tu ne peux pas être jugé c'est impossible. waaw beneen aussi gis nañ ne avant sax ñuy euh, euh, jeexal mbirum parrainage am candidat yoo xamane xamante ne euh, dañoo retirer déjà seen candidature naka nga gisee mbir moomu. waa loolu bettu ma et en même temps le fait que nit ñu ci bari ne ay candidat lañ parce que déjà on tend vers ce qu'on appelle la désacralisation de la fonction présidentielle. c'est-à-dire que dafa mel ne ñoom président dañoo jàpp ne sax nekkatul ab fonction boo xam ne tu dois être un un homme au-dessus de la mêlée un homme un peu extraordinaire exemplaire un homme boo xam ne tu es capable nga mën a sa peuple bi fenn ñoom jàpp na président kun fa rek da nga mën a am loo def il y a un comme ça donc kenn ku nekk jàpp na ne Sénégal toll na foo xam ne dafa mel ne jongo ma juñ defar ba pare solal ko ndogetam solal ko defar ko ba mu rafet maquillage ko ba pare léegi nag kenn ku ci ne mooy bëgg mu ne soxnaam kenn ku ne mooy bëgg mu mu maanaam mu d'accord ko mu wala mu jël réew maintenant loolu euh, boo gisee processus électoral bi mu am bari ay ay ay ay ay éléments yu ñu teg ay conditions de recevabilité bari parrainage après dépôt bi caution bi bari ay affaires yu lay laaj loolu lépp filtre la c'est important parce que bu ñu ko déglu aujourd'hui on a pas de 400 sinon on aurait pu parler multiplier par de huit cent maintenant le fait que ay am ñuy retiré loolu bettuma parce que nit ñi euh, njël mi ni am dañuy am bu ñu nee bëreet rek dañuy am dooley euh, dooley gaynde waaye bu ñu demee ba affaire bi bëgg seppandaw la ñu ci bari sax dañuy dem rejoindre le mouvance présidentielle am nu commencé di def ay coalition on est parce que logique de coalition am ñoo xam ne dañuy carte ba ba am coow am ñu xam leen ñuy xaar pour deuxième tour am pour ñu mën a dem jàppale benn candidat bu ñu yaakaar ne day gañ te bu gañee mën na leen jox poste ministre ay député ay yooyu mais toujours politique ban doon déplorer ñoom ca la nekkaat te da ngay dégg ñaan politique bi dafa war a jógee nangam ak nangam loolu la ñuy wax pour lëndëmal askan wi mais en principe loolu ñuy wax ñoom ci la ñuy dellu ci la ñuy delluwaat. d' accord léegi dernière question Abdou Khadre Diop am na aussi ñuy euh, Abdou Khadre Ndiaye plutôt am na ñuy laam-laamee naan euh, boo moytul mën nañu dàq élection présidentielle yu deux mille vingt quatre est ce que pour yow fii am na fi situation bu mën a tax euh, ñuy dàq élection yi. d' le respect du calendrier électoral dafa bokk ci principe yi régir fonctionnement état de droit. des institutions donc loolu moo tax euh, peut-être dafa am koo xam ne si dañ ne dañ ko war a dugal ci ab euh, ci euh, kii bi liste électorale yi am ñoo xam ne si peut-être seen parrainage mën naa am problème am coow lu am ci réew mi am ay situation yu fi am yooyu yëpp mu nekkul ay éléments ay ay conditions yu sûres wala motifs yu wóor yuy mën a tax ñuy dàq élection et en même temps aussi un pays des koy parce que dafa am période boo xam ne dañoo war a voté bu voté jàllee ni ñi dem liggéey il faut que ñu bàyyi toujours politique boo xam ne dañ koy def de façon permanente au détriment bon des problèmes yoo xam na si ne ñoo am ci réew mi à chaque fois autorités yi dañ koy rencontrer loolu nag bokk na ci li tax ñu maintenir calendrier électoral yi ku përewul doo ma sa pare parce que depuis ban xamee ne élection lay am yàgg na ku ci mënta dem convaincre population bi génn Dakar dem convaincre leen ba léegi defoo ko xamal ne amoo benn chance gane koo mu chance gagné nag day xool nu mbir mi bañ a amee wala nu muy séddoo wala yu demee noonu waaye pour man ku pare rek war ngaa mën a pare. kon Abdou Khadre Ndiaye ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. madame Moreau maa ngi la remercier. voilà ñuy fàttali ni analyste politique nga merci beaucoup Abdou Khadre Ndiaye jërëjëf. merci. Ndiaye